buur gi nag war na bàyyi jaay doole ñi nga xam ni dañu janoog moom ndax kat suñu constitution dafa am lu mu jox ku nekk te mu nekk sa cër kenn warul tënk nit ci buntu këram te tere ko génn këram warul am loolu duñu ci ànd tey duñu ci ànd ëllëg beneen bi moo di ñun jàmm lañu soxla ci réew mi gëm nañu ni nii Ablaye Wade jëlee woon nguur gi ci loxo Abdou Diouf élection février 2024 bi di ñëw carte électeurs yi danañu fi jële nguur gi fi nekk ndax Macky moom jeexal na